loolee lu ko sabab du lenn lu du tàngoor bi nga xam ne ne dafa tàng ci réew mi di Sénégal moom moo ko sabab si li ni mel nag kii di Amadou Ba daal génn daal di xamal Sénégalais yi que ne kàddu Pape Demba bi tey yooyee dëppoowul ak lu am ndax kii di Amadou Ba ne tàngoor yu doon am ci réew mii di Sénégal rek moom mooy amaat ci réew mii di Sénégal gisuñ fa tàngoor bu jéggi dayoo ba mën a yóbbu ab électricité bu jéggi dayoo ci réew mii di Sénégal kii di Amadou Ba ne lu sabab dëggantaan ñu daal di yokk courant bi ci réew mi di Sénégal sabab bi bitim réew la bàyyeekoo ci ab organisation bu international ne organisation internationale boobee sabab ñu daal di yokk courant ci réew mi di Sénégal du benn budut FMI kii di Amadou Ba ne ci mujjanteelu bor bu état bu Sénégal demoon uuti woon na biir FMI ne ci bor boobee bokk na ci accord FMI daal di imposer te mooy que ne état bu Sénégal bañ a subventionné liñ dippee courant ci réew mi di Sénégal kii di Amadou Ba ne accord boobee état bu Sénégal signé woon ak waa FMI moom lañ nekk di respecté ci réew mi di Sénégal moo tax subventionné tuñu courant bi ci réew mi di Sénégal loolee moom moo sabab courant bi daal di yokk ba jéggi dayo waaye ne benn tàngoor sababul la courant yokk ci réew mi di Sénégal bu courant yokkee ci réew mi di Sénégal état bu Sénégal moo ko bañ a subventionné ndax li ni mel waa FMI ñoo leen ko imposé état bu Sénégal tamit di ko amal loolee moom moo tax courant daal lu fi yokk Abonnez-vous vous sunu chaîne FTTV Sénégal la chaîne des patriotes Ça se et et